mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax di jiital ci nuyu yi ak ci ziare sëriñ Muntaxa Mbàkke moom mi nga xam ne moo toog ci jotaayu Cheikhuna Cheikhul Khadim mu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ba naal yi mu fekk mu àggale ko bàggale naal yi boppam te ñaandu ko moom di nuyu sëriñ Ahmadou Makhtar Mbàkke mi toog jotaayu Cheikh Moustapha Al Karim di ñaan suñu borom guddal fanam te wéral ko waaye di jaarale ci moom nuyoo njabootug Sëriñ Tuubaa gépp ngir xam nañ ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo njëkk a wuutu Xaadimu Rasuul di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy déglu seen réseau DTL diffusion triangulaire de lumière rajo Jant bi FM ci Touba 95 point 2 ànd ak keneen ci Dakar 88 point 6 ak leer gi FM ci Louga 94 point 6. di ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla ñu may jàmm ñun ñi nga xam ne lu ñu dool jàmm ñu amatiwaat mbégte dajawaat ak yéen ci jotaay bii ñi ngay amal ci seen réseau el muy jotaay yoo xam ne eh, ci xew-xew yi lañ ñuy fàttaliku suñu mat ñu baax ñi suñu jàmbaar yi nga xam ne loolu ñu wala jox naan gàcce ngalaama ñoom looloo tax tey jii buñ ko fàttalikoo ci weeru wolof muy ñetti fan yi baraxlu am na fu xel yi di dem di taseeg 17 mars 2021 eh, ñetti fan yi barax lu day na rek gone yi buñ masaan dégg mag mu dégg musiba naaru lay wala loo xam ne njabale lu mag lu mu tiit nga dégg mu ne la wax nga ñetti fan walaay wax nañ dëgg wax na ñetti fan ndax la ca xewoon la ca xewoon mooy mbokk yi eh, jàmbaar jooju yi nga xam ne moo njëkk a wutu Cheikh naa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim moom moo la suñu borom woowoon mu ñëw ci wetam Cheikh Modou Sa moom mii nga xam ne bésam bii tey la moom lañ fa seeni waxtaane ci réseau de tele bi yëpp mbokk yi ndax bisu tey jii la fi bawoo woon dem àjjana ñu seq jataay bi ak euh, sëriñ Mbacke Lo Thierno xam ngeen ko yakaar naa du ma sori ci présentation bi waaye ak Serigne Ahmadou Ndiaye Nguerane ñu ngi koy xaar mi ngi ci yoon wi di ñëw waaye ànd ko ak mbokk yëpp di nuyu sëñ Ablaye Samb moom i nga xam ne moo nekk technique bi ak coordination bi bu ñu ko nuyoo rek danañu mën a nuyul gaa ñi nga xam ne ñoom leen si xel jataay bi yëpp muy jàmbaar joo xam ne ku ko waxtaane waxtaane borom ngor ku ko waxtaane waxtaane taalibe Sëriñ Tuubaa ku ko waxtaane waxtaane borom fulla ku ko waxtaane waxtaane borom jom ku ko waxtaane waxtaane baax ku ko waxtaane waxtaane ku amuk taalibe ku ko waxtaane waxtaane jàmbaar dëgg ku ko waxtaane waxtaane ab organisateur kon kooku moom lañ fas yéene waxtaanee waaye tey nag dañ ci jël benn ponk wala ñaar yoo xam ne euh, dafa nekk toujours actualité te saa su ne doomu aadama bi waxuma la yoon bi rek mais doomu aadama bi da koy soxla euh, muy bennoo wooteeg bennoo Cheikh Maodo Moustapha Al Karim ndax moo nekkoon cheval de bataille am moom lépp lu mu réussir Cheikh Maodo lépp lu mu réussir rek euh, bu fekkoonte ne jumtukaay la doon wut pour réussir loolu mi ngi ko mi ngi yore jumtukaayu bennoo boobu la jëfandikoo. kon ci la ñuy waxtaane ak bi mu wooyee nit ñi bañ benn ba pare nag lan jeexital la amaat ci biir société bi ak nu ko nit ñi jëfandikoo tey moom la ñuy waxtaane seq ko ak eh, jàmbaar yi borom xam-xam yi nga xam ñoom lañ seqal jotaay bi sëriñ Mbacke ma jox la kàddu gi nga nuyu réseau DTL ñu tàbbi ci biir waxtaan bi bisimilah sëriñ Mbacke waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Ahmadou ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeurs u rajo bu barkeel bi waaye eh, di jël sunuy nuyoo ak sunuy ziar nag jaarale ko ci foofu yi nga ko jaarale rek xanaa fàttaliku waale ca ka nga xam ne tey jii bis bi kenn du ko tudd te sa xel demul ci moom ndax farlu gu ca juróom wu baax wa amoon ba tax Serigne Cheikh féetale ko muy soxna Xadi Fatma yàlla na ko sunu borom dolli leer dolli ko njëggal gën ko yaatal waaye di nuyu njabootam gi yëpp euh, tàmbale ko ci doomam Serigne Moustapha nga xam ne ñoo ko daan ànd xam ngeen ren euh, circonstances yi mu dajeel moo tax ñu wax ne euh, nañ ko yaatal ci waxtaan beeg information bi waaye daje beeg loolu nag mesure barrière oblige. Mm-hmm. su ko defee kon danañ fas ci bisu Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim boobu. Mm-hmm. sunu borom bi nga xam ne moo fi wàcce mbas mii. Mm-hmm. mu noccil ko doomi aadama yi. Ah te puutale ko xéewal gu yaatoo ni mbas mi yaatoo. mbaa mu ëpp nga xam ne ku ne danga ci gis sa bopp. ba bu jàllee jàq ak jaaxle ak problème jeex ci àdduna ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla defal. waaye nag di sukk ci kanamu mm. Serigne Ahmadul Maxtaar mi nga xam ne moo fi taxawe tey jii jëmmi Cheikh Mouhamadul Moustapha mu yeggaleel nu ko nag fépp fu mu war a yegg euh, ñuy ñaan teewe ko at yu baree baree baree mm. bari ñun ñëpp kenn bañ a manqué kon sëñ Axma xam naa pour jëkkanteeg waxtu wi rek li ñuy wax ne liy duuf ci ñey moom du xaj ci cin waaye nag ñeewu màggate ci gën a garaaw moom waaw waxtaane Cheikh Moustapha moom yaakaar naa ni semaine du ci doy kon dama lay delloo kàdd gi rek dëxëñ liñ ci waroon a wax lépp ci biir nag su ko defee bu ñu génnee tracé yi fi mu war a jaar euh, nuyoo beeg jokkantey salaam yi su ko defee ñu koy def ci intermède yi waaye ñu xam ne daal képp koo xam ne nii murit nga képp koo xam ne ak julit nga noo bokk bis bi noo bokk teewaay bii nu teew ci rajo bii noo bokk lu nuy wax noo bokk lu nu bëgg kon Axma ma delloo la ci kàddu gi. macha allah euh, Serigne Mbacke Lo Thierno Tarkalla waaye ñi nga ànd jotaay bi nag ak waa euh, Wilaya TV euh, ñu nekk. ñoom ci biir si bi ñu ci def liggéey bu rafet Serigne Saliou Fall ak Serigne Bada Diop ndeysaan ñu ngi leen bi ziare bu baax a baax waaye mbokk yéen tamit da leen ubbil leen bi mu nu cee ñàkk xam ngeen ko mënta ñàkk. suñ demee ba ba ci kanam daal xam naa duñ leen jox heure mais daañu ubbi téléphone bi ndax bokk talibé yi dañ ciy bëgg a participer 88 la 628 13 37 88 628 13 37 kon euh, Serigne Mbacke ni nga ko waxee rek ñu ak waxtu yi Cheikh Modou Moustapha Al Karim ni ñu fas yéene waxtaanee wax nga ko géej la waaye tey nag um, ñu tànn ci benn ponk boo xam ne moom nañ fas yéene waxtaanee muy benno benno de yàgg nañ ko dégg. Euh, ci alxuraan ak lislaam andil nañu ko bataay waaye Cheikh Modou Sa ñëw def ko cheval de bataille waaye suñ na wax ci benn Cheikh Modou Sa Serigne foo ñu ñuy tàmbalee ak nu mu ko wootee woon. jërëjëf Serigne Ahmadou maa ngi nuyu au passage euh, sama xalifa euh, son xadi Fall moom Baye Cheikh Fall Xataaba son xadi Dieng moom Baye ma Dieng ma Dieng dugalaale ci soxna xadi yëpp nag su ko defee di nuyu aussi ak ziare. Euh, soxna Ami Mbacke soxna Ami Fat seen ak soxna maam Fati Mariama Lo ñi nga xam ne ñoo ko daan ànd ak mu jot ren jiitam itam euh, euh, situation oblige waaye nañ ko daan defee noonu lañ ko defee ci seeni xol waaye ànd ak nun plateau bi aussi kon li nga wax lu am solo la xam nga Cheikh Moustapha wax dëgg yàlla waxtaan wi bari na ci mel na ne dugge nañ ko ci façon bu bari Euh, ren nag dañoo bëggoon euh, def rupture euh, rupture bi pour ñaari façon ndax dañuy seet ne yàlla dogal na saa yu bis jotee ba ñu jeqi yoon wi jeqi jëf yi indi authenticité bi le plus souvent waxtaan wi day jaar jàll ñu gis ne sunu njurant yi ci kër yi ñii école arabe la ñu nekk ñii école française la ñu nekk te macha allah yàlla bàddil na leen ñoom ñëpp ay études yu mag la ñuy def ñu seetlu ne boo seetoon quinze mille élèves yu dem doon ay étudiants peut-être lu mat miil def ci ay tees lu mat ñaar fukk ak juróom defuñu tees ci yoon wi. commission culturelle wilaya ñu seet ko ñu ne loolu jaaduwul léegi naka lañ mën a def ba loolu ñu saafara ko. ñu ne nañu génne la grosse artillerie mooy lan génne document yi génne document de référence yi wax ne amul xàjj ak seen koo xam ne war nañ laa jox xam-xam bi wala waruñu la koo jox na nga doon koo xam ne gëstu moo la ñor yaa xam thèse u mémoire looy def yaa xam ab maîtrise la ba ci doctorat yi socio ñiy def sociologie wala yi dama noonu thèse yi ñuy def lépp li ñu soxla woo am nañu ay référence yu wóor a wóor yoo xam ne kenn du ko delloo mhm. ñu wax nag ne lu mel noonu wareesu koo am ba pare xale yi dem ba ay université di bind ci histoire leneen loo xam ne du yàgg-yàgg ba mu feeñ dara benn yoon ci seen yëf loolu nag moo tax ñu ne ren ji 4 mars ñu bari suivre nañu 11 mars gi aussi ñu dolli ko mais yeneen yi jiitu woon aussi noonu lañu ko daan def muy mhm. dañuy fexe ba mhm. euh, li ñuy waxtaanee mhm. euh, xale yi gis bunt yi mën cee dugg mën koo seet euh, kon loolu ñu wax tey ne bennoo day tem bu am importance bu yàgg waaye ni ñu ko indee ren dana am wuute ndax dañ dul indi benn kese wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu d'accord waaye bu nit ñi dajee ba doon benn importance bu daje ba mooy doon sous point bi Cheikh Moussa bi mu ne na ñëpp daje jamono ko wanoon yoon woo xam ne fii fi mu jëlee euh, yoon wi ak li nasaraan bi niseroon yàqkat yi ci ginnaaw li ñu niseroon ñoom ñëpp seen conclusion moo doonoon sëñ Tuubaa moom mënaluñ ko dara nangu nanu lool. waaye bu fi jógee mag ñu bari ñu am doole ñi ñu dajale moom kenn mënut a tee ñu tojante bopp loolu moom tubaab yi seen rapport yëpp. programme nañ ko ci. su ko laajee sax ñu indi ci waaye moom leer na ne programme nañ ko bind nañ ko wax nañ ko te dogu nañ ci kon nag Cheikh Moussa bu dikkee. premier objectif am muy lëng ñëpp na ñëpp àndandoo loolu nag wax ko yomb na waaye jëf ko jafe na loolu moo tax ma ne parti boobu ki koy traité dana indi Cheikh Moussa bunt bi mu jaar ba woo gi mu woo nit ñi ci nañ ànd nit ñi nangoo ñëw ndax dañ cee gis seen bopp Cheikh Moustapha 45 la fi jóge woon Serigne Mag bi 27 la fi jóge woon tey jii ñuy toog tey jii ku ci xam ku ceek woon génn ci yoon wi ber yoonu boppam bu fi amoon journaux yi bind ko waaye amu fi. kon loolu mooy pom poñ bu njëkk bi nga xam ne suñu ko séddalikoo suñu waxtaanee objectif bi tax ak li tax ñu dajale nit ñi beneen poñ bi mooy bi ñu leen dajalee ba ñëw ana mbedd mi ñu leen sol ana lan lañ fa liggéey. ana li mu jëriñ nit ñi tey jii ku bëggoon a teg sa loxo ci loolu fan ak fan ngay xool la ci des di conclusion kon loolu mooy plan général bi plan général bi nag fi ñu ko jëlee moom laay wax rek delloo la kàddu gi parce que sama frère Ahmadou Ndiaye dikk na. dama ne cinq bi fi sëriñ biy jógee fekkoon na lu mat 15 ans ci ginnaaw projet yu bari moom féete woon na boor sëñ bu mag bi 27 ba mu wàccee. ci ca ëllëg sa la ñëw Touba loolo moom dootul débat ba gaa yi rëg-rëgee pour ñëw fa pour wax wax la woon ba mu leen tontoo teg nañ wax ja ci suuf ndax bakkan la leen jaay kon li ci desoon mooy defar jumaa ji ak li nga xam ne moom mooy aju ci defar jumaa ji ndax boo bëggee loo xam ne yu yoroo dangay ngay sóoraale kala mën a sottalal sa yëf danga koy boole ci sa mbir loolu moo tax Cheikh saal charge bi réewoon parce que tubaab bi daa amoon fu mu toll ci crise amoon fu mu toll ci bëgg lu munta am te gis ko ci lenn képp muy ñaq nit koo xam ne day ñaq te ñaq bëggu ci dara man koo joxe xare nañu fu ne fu ne dem nañ fa rey nañ ku ne waaye benn objectif lañ amoon mën a jekku nit ñi ba mën leen a liggéeyloo léegi nag diggante 45 li tax ma la doon wax ne 27 sori na 45 sori na Cheikh Moustapha daan diggante bi mu daan nu door a tàmbalee génn li temps bu jeex bari dafay jaar temps boobu laay wax période sombre de l'histoire mooy sëñ Mourou Moussa mi ko liggéey ak nag ñi ko àndaloon xam nañ limu waaye ñi wàll ci yëf ak ñi ci dabe ak ñii door a dañoo gis jumaa ji rek gis raay bi mu ne gis yi yëre yéeg lépp dara manqué wut waaye xamuñu fu mu jaar léegi ñooñu est-ce que dañ leen a war a bàyyi ci ñàkk xam loolu kese loolu loo taxoon commission culturelle bi jàpp na war nañ cee def ay gëstu waaye gëstu liggéeyu mag soo ko àppee ci fukki at mbaa fukk ak juróom doo dem moo tax ñu def ci ñaar fukki at ak ñaar deux mille euh, quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatorze la ko commission culturelle bi jàpp tàmbali ko di dox tànk par tànk benn par benn ba ci 2016 mu am ay période yu fructueuse ak ay période yu xaw a dal période mbënn mu yaatu mi ñu taataan ko période toq-toqal bi ñu maccaat la nga xam ne moo doon rot di ko bind di ko teg di ko tasaare di ko denc dencin yu wóor yoo xam ne ni lu àdduna yàgg-yàgg histoire boobu dootu rëcc yàlla tawal mu mag mu baax mu fekke woon yor première mai muy Ibrahima Fall Madior fu ma tudd Cheikh Modou Moustapha ñaanal ko mu dem ci moom fekk yàlla dogal moom moom la sëñ Modou Moustapha tegoon digganteem ak tubaab bi tubaab bi naan ko mu naan Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha di ko wax muy wax tubaab bi mu jàng école dañu réer kon kooku bu doon ci gëstu ci règle de source de première main la newut dégg naa déedéet moom acteur la woon ci diggante ñaari parti bu kii di def moom lay waxal bu kii di def moom lay waxal mu nekk ci diggante bi te moo nettali lii nuy wax te yàlla dogal na it biñ koy nettali fekke na ko muy dund ba ñëw na benn bis jëmmal ne kat li ma doon wax te ay gone daan ko wax te muy am ñu mu jëmmal mag nga leen koy wax bi ngi nii kon mel na ne épistémologie c'est-à-dire épistémologie gu gëstu boobu am na ab dëgër laay nag dañuy bàyyi kenn ku nekk nga yor sa méthode technique ak méthode intellectuelle pour def say investigation mais ressources yi nga soxla yaa xam doctorant looy def premier cycle deuxième cycle ou yaa xam mémoire maîtrise ngay def wala DEA wala lu mu mën a doon te nga def ko ci loolu soo ko soxlaa ci yoon wi ci objectif yii nuy wax soo dikkee danga ci am loo mën a defee thèse bu leer nañ diggante 2016 dara da cee yokk ndax am nañ net lib mag ñi waaye am nett lib acteur principal bi nga xam ne moo fekke woon mais 2016 nag bàdd gi dafa dagg ndax tubaab bi nga xam ne moom moo ne woon ci yëfi ba mu defee la muy def ba noppi am na fu mu daan bind foo xam ne xam nga yëfi tubaab daal yombut na ndax compte administratif u 1931 bi ñu génne mu indaale secret période boobu fi sëriñ bi jógee ci bees bees bi vingt 27 28 29 30 loolu yëpp mu indaale ko ñu déclassifié ko muy ay archives yu authentique yoo xam ne français yi ñoo ko bind. nun nag néewunu lépp lañ gëm ndax archive moom léegi yeewu nañ ci ah defe naa sax mosuñu ci woon nelaw ndax sab sab noonu ku muy sëlëm sa kanam du set. waaye am na loo mën a jàpp ci moom mooy lii waxtu sàngam la xewoon. Mhm. diwa ko fekk ñaar yooyu daal moom mën nga leen koo nangu. waaye lam ca def ak lam ko defal wutal lël sa bopp yow la nga defoon nga xam lu doon ndax lam la wax mën nga ko bañ a xam kon diggante ñetti archive yooyu mooy li ñu fore ci nit ñi ak li ñu jëlee ci Ibrahima Fall Madior mi nga xam ne daa nekkoon ci diggante tubaab yi ak Cheikh Mamadou Moustapha ak li nga xam ne tubaab yi ñoo ko bindal seen bopp mu nekk ci compte administratif boo xam ne officiel yi tubaab yi yépp moom lañ daan xool ñun mu jot ci ñu méngale ñetti programme am nan lu nu gëm am nan lu nu weddi ci ñoom am nan loo xam ne it nangu nan caa jàmmaarloo ak ñoom tegante ko ndax ñoo ko bind waaye noo ko jëf kon loolu mooy euh, euh, plan général bi nga xam ne moom lañ fas yéene wër tey euh, su ko defee man partie bi ma ciy féetewoo mooy bu ñu indee bennoo gi bu Ahmaw waxee sëñ mënu saa ni mu doon benn leen nit fi mu teg cëslaayoon war a benn leen nit ñi nan la leen convaincre bañ doon benn ba bennoo gi sax bali tubaab bi waxoon moom du doon dëgg bu boobaa nag ñu seet ba xam ndax nag yi jofi nanu walla jofi woon ab sàmm bu ne baabal suural jofal la ñuy yaakaar ci moom su ko defee nu xool fu Cheikh Moustapha baabal ñamu baabal lu nu añeeg lu nu reereeg lu nu naan ba nu jof see ndax am na lu manqué wala jur gi far na juraat ci biir ba gën a yaatu ñu ngi lay delloo kàddu gi. Eh, jërëjëf eh, eh, Serigne Mbacké Lo Thierno macha allah introduction bi ak yooyu nga xam ne yokk nañ ko muy leeral yu am solo ci jàmbaar ju mag jooju dégloo waxtaan bi xam ne wa maanaam ñoom wala moom boobu ndax buñ ko waxee buñ ko waxtaan bi lépp lu baax ci àdduna fu baax nekk boo ko tuddee bu la neexee. Euh, moomale ko Cheikh Modou Sa Karim nga xam ne euh, buñ ko dégloo buñ joxee kàddu gi wax nañ ko bi Serigne euh, introduire léegi muy koo xam ne diplomate woon bu mag a xam nga buñ gisee loolu mu junj ci kàddu yi ci contexte bi mu nekkoon contexte bi mu wutoo Cheikh naa Cheikh ba xam nga la tam dañ bari jar a bàyyi xel contexte boobu mu mu mu ne dann Serigne wax ko ne moom wane woon jëmi boppam ba pare mu ne dann kan Cheikhul Khadim di ko wane ci naka la koy wane booba juddu ba euh, cër ba xel mi ak euh, euh, doole ji lépp mate woon na moom kese mu dem te bu boobaa dana mën a réussir waaye mu jël bennoo def ko loolu ñuy wax cheval de bataille ci français mu daj ci lu nag dégg ci lu ne waaye teewul yaakaar naa ne ba nëgg ne mbooloo bu daje mu nekk am na bu doonte ne dañuy joxe ay pourcentage dañ ci am pourcentage kon suñu Ahmadou Cheikh Modou Moustapha ak ak àndandoo Cheikh Modou Sa ak boole njabootu Sëriñ Tuubaa bi waaye Cheikh Moussa ak boole njabootu l'islam bi ndax ñu ban da cee regroupé ba doxal ci loo xam ne sax kanam na jot Cheikh Amadou bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala nabiyyil karim sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi wa xadimihi dawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki talibe yi dañuy jël nuyoo bi rek dugal ko ci nuyoo bi mbokk yi doon nuyoo léegi ngir jëkkante ak waxtu wi kon du jar ñu ciy jaaraat ngi ñaan yërmande suñu borom akum njëgalam di dugg rek ci waxtaan wi direct te mooy jéem a fàttalante jéem a laayante biir jéem a soññant ci jéego yi nga xamante ne ni mag ñi tegoon nañ ko ba yi yi agsi fii mu aksi te Serigne Cheikh Mbacke day wax ne wa maa alal xalaf illa an yasuna asara ki wootoo dara waru ko lu sàmm lim fi fekk te mag ñi itam defoon ab joxoñ ni iza aratum an taarifuna fattabiu azarana su ngeen nu bëggee xam da ngeen di toppaat sunu mboor kon yoon la nu delluwaat xoolaat sunu démb te toujours mooy li may faral di wax rek ni rétroviseur bi ko tubaab di def ci waxtu bëgg lu rafet taxut daa bëgg a gis la ci gannaaw parce que mooy tax mu xam vitesse bi ñu war a daw ci kanamam ak fan la jëm ñu tudd euh, jàmbaar joo xamante ni nii ñëpp ko war a bàyyi xel ci aw doxalin wu rafet woo xamante ni nii te doxal na ko ak sàmm ndono ak dundal ko rawatina nag fii nga xamante ni nii fi la ko doon defe te it du lu yomb xëy na dañoo judd ci biir yëf yi di ko dund moo tax dëgg-dëgg yëf sax jéemu ñu cee gëstu wala ñu jéem cee xam dara ndax fiñ ko dabe waaye doon doon lu ndax toujours li wax ni ñi ñi juboo jubuñu te ñi juboo jubuñu ñi juboo jubuñu te ñi jub juboo wuñ loolu mooy mooy réalité ñi juboo moom jubuñu te mooy tubaab yi bokkuñu ay diine bokkuñu ay waaso waaye seenu dëng te googu yi ànd nañ ci ba not àdduna boroom ñeent fukki at mu war a wéyal te waxut itam officiellement ñu leen topp leen kii loolu lu lu doy kii maanaam te ñim fi bàyyi ñenn ñi mook ñoom ñoo bokk benn waajur te koo ci mën a koo ci a dema boppam ñi ci des moom sëriñ bi lim leen ëppalee ci ay at woon ñenn ñi ak maasa ma ci ay te ci yoonu suñu la leen woowoon ñeneen ñi ci des ak njaboot lañ koo xamante ni ci biir yëf yi lañ gane àdduna kon muy ay ay kuréel yoo xamante ni nii pour mu nas leen ñu nekk ci genn buumu kurus loolu liggéey bu rëy rëy waaye nag moom jeexitalu sëriñ bi la nga wax ni liggéey sëriñ bi ak fi mu jële moom amul rupture continuité lam loolu daf cee feeñ ci aw doxalinam ndax daf doon wax ni doomaadama aadama yëpp mënees na leen a sol ci menn mbedd waaye mbeddum teraanga lay ci nga mën a sole nit ñëpp ci menn mbedd teraanga jooju la jëflante ñu ndax xamoon na ni du doolee koy def du baatina koy def du ak wilaaya jamono ci Sëñ Tuubaa jaar ba jàll wane ci nekk loolu moo taxoon mu mu daal di xam ni yoon bi mu jaar ci la mën a sukkandiku ba nas yoon wi mu doon benn baat te bu fekkoonte ne ni du yar ki ku sëñ Tuubaa yar ak fi ku sëñ bi jaarale ak xelam mu rafet moom yi nga xamante ne ni moom la indaale jamono naka ne ay xalifa généraux dana bari ci yoon wi te ñëpp ay am baat te ku ci wax kenn du ko tegg ni yeneen yi yoon yi ci des demee waaye mu daal di gis ni ñi nga xamante ni nii sëriñ bi ñoo bokk suñ morant sëli wax ni danaa leen jox cër bi ma jox sëriñ bi boobu la leen di jox tey loola li ko dëggal mooy mboolem ñooñu yi nga xamante ni ñoo sëriñ bi ñoo bokk suñ morant sëli ñoom ñëpp wa mat nañ seeni taw teg ci loxo su leen cofoon seeni taw duñ ko topp ba fi mu toll nii jamono ji rek koo cof bàyyi mu pare ci yow te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk wamat nga sab taaw teg ci ko ñu ànd ak moom kon waxaale wu ma rakk yi ñi nga xamante ne nii ay mag lañ te xaw a maase ak sëy ci ay at ba mu jox ñee la leen nga xamante ne nii ñoom ay génération lañ mu def leen ni boppam seenu njaboot mu def leen ni ak njabootam ñett yi rek la jëfandikoo loolu nag du du lu mu wax waaye da koo jëfe ba àdduna seere ndax daf daan wax ne loolu ne mën nga koo cof am ko ba mu des nit nit xëju ci cati baaraam daal ni nit itam koo cof ba mu yëg nga bëgg ko yilif mën mënta nekk daan wax ne itam ne as gor danga koy defal ba pare di ko defoo ba pare di ko def loo da nga koy defal di ko defoo ba pare di ko defloo ñett yooyu yëpp day ànd ndax asgor bu fekkente ni da nga koy defal ba pare di ko defloo te defoo ko bu yàggee dootu ñëw su fekkee gor la parce que day xam ne am na buntu boo ko sakkal su fekkente ne ni da koy defloo ba pare di ko defal te defoo itam ko noonu su fekkee da koo defoo ba pare di ko di ko defloo te defaloo ko itam day xam ne des na moo tax moom ngay dégg sax sëñ Moussa Ka ci tàllal li joor la moomee Saalum ak Kajoor ku ñëw mu jox la la fay sa moom muy kenn ku ci nekk fexoon na ba wàccuwaay bi nga am ci moom dangaa jàpp ni yow képp la ko beral am kenn ku ne jàppoon na ni Cheikh Moussa moom sama Cheikh Moussa man képp hmm. li ma may ci boppam mayu kenn loolu nag day day delluwaat rek ca njàngalem turandoo ndax njàngalem yonent bi ak Sëriñ Tuubaa mu amul rupture continuité la sëriñ bi moom li yonent bi tegoon bi mu dikkee loola ca la teg tànkam xaar be bi moo tax Sëriñ Muusaa itam ba ko Seex Sidiya di way dañu fal Moustapha in sabahat afaalu bi afaali walidi falay sa bi zalimi mu ne bu fekkente ne ni jëfam daa niroog jëfi Sëriñ Tuubaa nee na kooku tooñut ndax Sëriñ Tuubaa tegoon tànkam rek foofa foofa la teg tànkam kon da gis ni hmm. benn la googu nga xamante ne ni moom la benn la yoon wi loolu moo may yoon wi fii mu agsi tey doole ji mu agsi tey moo ko doonte sax am na ca doxin wa loo xamante ne ni continuité amu ca ndax lu yàgg soppiku waaye nam doon taxawee nga xam ne ci stratégie rek mooy moom dafay nekkal Sëñ Tuubaa waaye mu teel a wax mag ñi ni leen bu leen ma natt ci moom ndax sëñ Tuubaa du nattukaay kon xamal ne leen ni du ma mm-hmm. waaw waaye yéen ñii fi nekk nag nañ may xool ci seen biir ba keroog may dem waaw kenn kenn kenn du ko ci man kenn du ca gis loo xamante ni da nga ko ci wokkul toll ni tarfatalaay ndax lool yi mu waxoon ni lu ma am danaa ko bokk ak ñoom te lu am danaa leen ko bàyyee te ku ma tooñ ma jéggal la njiit du ko def déggoo ñu nga àndal mm-hmm. te noonu la doxalee ñoom ku sëñ Tuubaa bokkal ku sëñ bi jur ku sëñ bi yar ak ñi fi dabe si gannaaw bi ñëpp noonu la demee ak ñoom ñëpp kenn ku ci nekk koo ci waxtaanal danaan mu Moussa li ma defal mënu ma koo fay te te mooy fi ku sëriñ bi joxoñoon ndax noonu la gisee woon sëriñ bi yore ko njaboot gi nga xamante ni ñoom la nekkaloon loolu buñ delluwaatee ci alxuraan dañuy di gis ni kon wa atasimu bi hablillahi jamian day daal di dikk suñ borom ba mu joxoñee rek joxe ndigal ni ànd leen ci buumu yàlla te bu leen tàggale ko kon képp ku wax ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah amoo droit daal ndax jamee ànd la wax tekkee nag ni bu leen tàggale ko te loola ka wax loola moo waxoon ne aqimu salaata wa atu zakat moo ne woon leen joxe leen asaka moo delluwaat waxaat yi ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi moo tax musta nangu ci jataayam ñu tudd fa ku fa nekkul ci lu du tudd ak sama sama so loolu musu ko may kenn ñi nga xamante ni ñoo koy dikkal itam moo xam ci wet guñ mën di jógee waajur wa nekk foofu te doon kilifaam ci moom dana la laaj ndax gëj nga koo gis ndax jaar nga fa nga ni déedéet li nga ko indil booy delluwaat mu jox la ko ni la boo fa jaaraat siyaareel ma ko te joxal ma loolu moo lay xamal ni la waroo koo teggi loolu sëñ Abdou Assis si dabax kasetam bi mu ñëwee Touba loolu lu mu wax la lu leer nañ ñi loo xamante ni du lu ñuy sos wala gannaaw information boobu jotuma ci wala nangam boobu moom dernière génération jot nañ ci te ci làmmiñu ki ko def da ko jottile ñu gis ni itam ni ci bëgg jàmm gi ak laabiir gi ak xam gi àdduna ak xam gi doxalin wi xam na njiit nu muy mel ngir mën a mat ñu topp ci gannaaw ndax daf daan wax ni njiit day am fulla ba pare am njariñ ndax nee na boo jiitoo te am njariñ te amoo fulla ñi nga jiital dañ la yeb te nit ki waroo doon kilifaam ba pare mu bëgg laa yeb su fekkente ne da am fulla ba pare amoo njariñ ñi nga jiitu dañ lay bañ te nit ki waroo koo doon kilifaam ba pare moo lay bañ moo tax mu ni da am ful la ba pare am njariñ moo tax ñi ngay jiital duñ la mën a mun nee na boole ci nag da ngay dënniir waaye da ngay tàng jërlu ba ko la laal daw nga xatt ba ko la mu siabel mu misaal ko ni dangay mel ni sawara su waree safara sawara léeg-léeg mu xëy raafal ab dëkk dëkk bépp jeex waaye bu timisee da nga gis kenn ku ne fi mu nii mm. di ko yaaraat fa ne di toog lu mu lekk <laughs> waaye da ngay xam ni koy saytoo. Mhm. <laughs> ba du leen. dëgg la loolu loolu misaal. Mhm. loolu taxawaay la boo xamante ne ni mënees na koo wax ci ni nga xamante ni noonu la fexe ba rassembler mhm. li nga xamante ni moom la fi sëñ bi bàyyi woon ci méthode bi doon doxee ak jikko ju rafetal waaw nga xam ni lu ci wan kenn ni la lii la la ëppalee wala may nangam ci yow mais am na benn bis sax muy génn am ci tel bi ku ko romb koo xam ne xam ne da ko nuyuwut am ci ñu ànd ak moom kon ko diw alkono mu ne leen lu ko àll ak ñu ne ko ah, nga nekkal fi Sëñ Tuubaa mu romb la bañ la nuyu mu wax ko ni ko tuub ko ki ko defar du defar lu yàqu hmm. moom xam xam na sëriñ bi bu baax a baax xam wàcc xam itam ni lim fi bàyyi lépp matériel sëñ bi moom lii ndamam mooy fexe ba mu doon genn kurus mu nas ko ko te loolu euh, gan gannaaw sëriñ bi moom rek la fi yoon wi dajawaat ci gannaaw mu jidif ñëpp gannaaw gannaaw sëriñ bi rek moom rek amaatut amaatut amaatut loolu nag ñàkk amaat googi nag rupture la boo xamante ni xëy na moo moo nu topp ba nëgë moo tax daanaka yëngu baa ngi fi waaye dox bi gaawut waaw dox bi yeex na ndax mën ñu réaliser dara bi jumaa ji te léegi fi ne dara lañ fi defatu boo xoolee da nga xam yëngu waaye doxul te jàngoro ji rek mooy nas bi ci boppam organisation bi ñu war a àndal moom te organisation bi ñu war a àndal ute yëpp a ngi ci biir. Mm-hmm. waaw bagage bagage a ci biir ñenn ñi dégg nañ ko. ñenn ñi dégguñu ko nji la seen bët tegu na ci waaye daal doo xam lu mu xam naa xëy na sëriñ moom bu ci duggaatee su mën a expliquer loolu la loo xamante ni ñi dañuy xam ni bagage yaa ngi nga barab lii ci la lii ci la yoo xamante ni mag ñoo ko dajale woon te lépp nas yoon mu doon benn say rek loolu noonu ndax doctrine la yoonu murid doctrine la woo xamante ni mboolem loo xamante ni adduna daf koo soxla te muy aju ci dundu doomu aadama lépp mu ngi ci biir sëñ bi parawaar na te lenn lu ci nekk dox na ci ay jéego ba cat la génn nga xamante ne ni continuité rek moo ci desoon. ma bàyyi kàddu gi noonu doon Eh, sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane amati na solo eh, kaddu yi eh, macha allah ci bennoo ndax man yi waxuma sax ab sëriñ mais société yi wala gouvernement yi administration yi ñoo mën a jàng ci Ahmadou sax te kat li ma jaaxal mooy bi mu ko bi man loolu boobu école coloniale bee fi nekk ñu doon jàng ci école yi gën a mag doon war a jiite ci Afrique te moom xoolal lim lim réalisé foofu hmm. xam nga day bu doon te ne jamono daan ma nga jàng ci ecole yi gën a mag ci Europe mbaa ci Amérique wala feneen feneen moom mu nekkoon ci keppaaru ku tedd gi waaye liggéey fi liggéey bu rëy boobu ku mat a roy ñu nag li ma ci gën a neex mooy euh, ak nga xam ne war ko dañ ko jàpp mooy ñi xam naa xelam doon jóg bu moo euh, euh, say mbokk nangu la jafe na hmm? waaw nit ñi moom man ngaa am lu ne waaye jàmbur mooy jóge ci àll waaye mbokk yi te ndeysaan moom Cheikh Moussa ay mbokkam moo ko gën a nangul ndax gis nga njabootu Serigne Touba gi rek ni ñu defoon ak ñoom ñi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba ko xool ci ñoom rek ne ko gore la te baax euh, mbokk yi yéen euh, seen jataay bi ñuy amal ci réseau DTL 95 euh, point 2 ci Touba 88 point 6 ci Dakar 94 point 6 ca 94 point 6 ca Louga di waxtaanee Cheikh Modou Sall Karim ci bisub ñetti fan yu bii nga xam ne ci lay fi bàyyi ko woon dem ajana Euh, ñu ànd ci ak Serigne euh, Mbacke Lo Thierno ak Serigne Ahmadou Ndiaye Ngaraan dégg ngeen ko fi mu daaneel léegi. damay ñu àgg ak euh, Serigne Mbacke Lo Thierno moom it mu dikk ci Serigne Ahmadou gis nga tënk na Cheikh Moussa stratégie yi nga xam ne amoon na ko muy stratégie yu efficace yoo xam ne du màggat du xamaat mukk ca ba tënk li ñu ba mu ko tënkee ba pare yaakaar naa ne am na étape bu ci topp kon Serigne. li Cheikh seen tubaab yi jërëjëf sëñ Ahmadou Dieng jërëjëf sëñ Ahmadou Ndiaye Nguerane euh, campement bi leer na nañ ci lamiñ wu leer li nga xam ne moo tënkoon sëriñ Mouhamadou Moustapha ni mu wàññikuwaatee tënk jamono euh, lu am solo la. Euh, ñu bari danañ seetlu ne saa yi ñu masoon a ñëw fii ci ñetti fan yu baraxlu dinañ leen waxtaanal sëriñ bi fanam yu mujj ak ni mu ñëwee Touba ak mu dema noonu kon ku ci déggul rek nga xam ne maanaam ñun danoo jàpp ne loolu comme joué nañ ko ay film mu ngi ci internet bi mu ngi ci YouTube bi mu ngi ci lépp. Euh, des na beneen puxus boo xam ne nii na loola amee importance ne la lii amee importance te lu nu war a xam moo tax euh, lii am ma wax dëgg la wante léegi boroom xel mii xalaat moom bu ko neexee mu teg lu bari di laaj ne Cheikh Moussa boo demee daal ñemewutoon ci yoon bi kooku da nga koy bàyyee xalaat xalaatam bu def noonu nga ne Cheikh Moussa daa mel na ne maanaam bu nit ñi àndutoon ak moom du dox mission biñ ko biñ biñ ko sant kooku danga koy bàyyi mu xalaate loolu nga ne Cheikh Moussa daa yéene woon teraanga ji ñëpp bokk ko ndax borom yëf yi wéet naag moom ci ruq ah ma wax na ko nee na waxut benn yoon officiellement ne teg leen fi Cheikh Moussa waaye wéet naag Cheikh Moussa ba tàyyi te mag ñi gënoon a jege sëñ bi sax ñu ci bari xamoon nañ fu ko sëriñ bi teg waaye nag jamono itam loolu ci sëriñ bi jëfandikoo lu jar xam ne bàyyi jamono ab doxam mu dox nit ñi joxe seeni jëf kenn ku ne yor sam xel ku analyser ba xam ne lii moo jàll topp ga day yomb sa nangu du nuróog ku ñu takk buum ci baatam xam nga nit ku ñuul moom li muy néew néew doole ci waxin par rapport ak ñi nu jàkkaarloo am na loo xam ne lii du ko nangul kenn mooy takk di wom la soo ko defee rek day fekk yaram wi di nàcc fu ne waaye ànd ak jàmmam ba pare nga takk di womat moom genn buum gi rek la muy gii ax ma wax muy goog teraanga kon euh, yii rek a fi am jaay doole nit ki ba mu topp la ak jox ko teraanga ba xamatut nu lay def mu jox la boppam bu njëkk bi nag duma wax sax wuur yi ndax waroon nanoo seet wuur yi fi jaaroon balaa sëriñ bee ñëw ndax sëriñ bi waxoon na Lat Joor ne ko conclusion bi mooy tubaab bi moom not na réew mi léegi yéen damaa bëgg damaa bëgg yow nga ñëw ma defal la lu gën lii nga doon nga doon nga doon kii loolu lu nu gis la lu yaatu la waaye sëñ Modou Moussa moom ci boppam xelam dem na ci ñi nga xam ne duñu woon ay wuur waaye dañ fay nekkoon di woote di woote lu jëm ci sunu borom xam nga mouvement tub nan dañ koy wax mouvement tub nan ñaari mouvement yu yu jàkkaarloo la maanaam nasru diin mouvement nasru diin la tudd ñi nga xam ne dañoo ñëwoon léegi pour potoxlu ne ñun ci waa diine lañu ngir mën a am pouvoir ñooñu ñoo ko tudde woon mouvement tuub nañ tuub nañ boo demee ci kii bi da ngay gis France euh, Christian Coulon day bind la mouvement tuuba nañ déedéet tuub nañ la xam nga kee daa wax ne nun dañuy wàllu diine gaa yi ñëw ne nun tuub nañu ñooñee wax lañ ci dugge waaye bu nu jekkoo ba yor gis nañ yirim ko de ca waalo fa mu jaar am montagne lañ def mu ñu montagne des saints nga xam ne lu mat nangami yi yu jeex lañ fa suul muy buur yooyu Nasiruddin moomu ba mu ba mu din Muniruddin mi ko remplacé moom ci loolu la dem Chérif Ousseynou moomu nga xam ne moo waxoon euh, Nasru euh, euh, waa mouvement ba ca waalo ne leen Yirim ko mii ñëw di wax ne tuub na laaj nguur gi bu ngeen ko joxee seen bakkan ci loxoom lay des. Thierno Souleymane Baal ñëpp gis nañ révolution théocratique fa mu ko almaami Abdul Kader ma nga xam ne moo samp. yoon wa doxal ko ba léegi ñu di ko jàngale ci eh, université yi waaye Amadou Cheikh ñooñu ma tànn dama ko tànn ci Fuuta ndax gox bu nekk man nañ faa wax ñu bari waaye am na ci ñu gën a yaam ku ñuy wax Samba Diadana ñu bari xam nañu ko ñoom ñëpp ci Fuuta lañu lañu lañu lañu lañu féete woon boo diggee ci biir Njaamu boo ci génnee ku mel ne Siré Xujakumba ak Sayid Xujakumba ñoom Amadou Ngën a la lanu dajeel moo nag sëriñ su bari waaye ñoom ñoo des cax réew ñeneen ña ay gaañu gaañu yu metti lañ fa jóge ñeneen ña dañu leen a jàpp sax jaayi leen comme ay jaam wante tafsir maxtaar binta amadou aminata ay nit ñu baax ñoo xam ne diine kese la waaye fu nu mujj ci loxo tubaab yi rek la nu mujj mamadou lamine dramé men bu gunduru alpha molo bàyyi moussa molo Moussa Molo ci boppam Babacar Doumbia bàyyi Fodé Doumbia. Mhm. waaw Ibrahima Ndiaye bu émiru Joola bu Marsaasu Cerno mhm. Ibrahima bu Fuladu lim bi du jeex waaye fukk juróom-ñett a ngi noonu te mën naa gën a bari lool. ñoom ñooñu ñëpp ci diina lañ doon dox waaye seen euh, nasaraan bi taxaw na ci seeni i kanam wala seen i allié ba geg seenu mission faagaagal leen door a bàyyi. Mhm. kon bi Serigne Touba génnee moom indi lu bees la tubaab yi doon bañ ca ñooña yoroon gànnaay amuñu woon layu man koo safal tuuma jooju donte ko nag jéem na waaye génnewuñu benn yoon ci moom gànnaay daan nañ wax ne ñi ñu daan dajeel ci champ de bataille ñenu ci gënoon a sonal boo demee ci sëriñ si ñoom ngay fekk ñu topp kon sëriñ bi daa amaguti gànnaay waaye moom lay wuti loolu bind nañ ko ci seen rapport mm-hmm, yëpp mm-hmm. waaye ba dara desul dul jàmmaarloo sëriñ bi da leen a yóbbu ba ca Afrique mm-hmm, mu nekk fa ñoom juróom-ñetti weer ñoom ñoom ñoom ñëpp moom doom hmm? ñuy xëy ci moom muy xëy ci yonent bi di fanaan ci sunu borom ba nu ànd doon ñoom ñëpp na ko nun tële nun hmm. muy lu leer hmm. kon sëñ Modou Moussa bu bu sëñ bi dee wërëg mu toog làmb na buum yëpp ba xam ne yi dëgër ak yu nooy moo tax mu xam ne buumu teraanga gi fetal yi fi doon tàkk li muy bari bari bari bari benn amu ci résultat tubaab bi doon rey ba léegi mi ngi rey te li mu bëgg amugu ko ñi doon reyanteeg tubaab bi dee nañu ba jeex te li ñu doon bëgg amuñu ko sëriñ Touba mi reyul kenn te nangoo bàyyi jox leen ginnaaw gi ñu dóor ci ba sonn not na leen ba teg leen. moom li ci des moom mooy mu tàllal wane njariñ fa mu ne ku woote njariñ nag ñaaree am gars yi danañ ñëw jëriñ li jël njariñ li toog wala ñu jël njariñ li dem ndax njariñ foo ko tàllalee nit ñëw kon différence bi mooy sëñ Manoum Sarr tàllal nañ njariñ waaye nit ñi bi ndikkee danoo toog kon nag loolu moo jaral la ndax lu dul jeex daanaka kenn yoru ko waaye nag bu fekkee ne ku jël paar même boo amaatut da ngay toog kon mel na ne lañ fay joxe nit ñu koy jël moom jig na leen te am nañ ci yaakaar moo tax nag euh, Cheikh Moustapha stratégie bi nga xam ne nii moom la def pour layal bu subaa génération yi ñëw dajale naa mbooloo yomb ndax ku woote ñu wuy si boo demee ci stade sax lañ fay tëgg day am nit ñoo xam ne fa lañuy ñuy yenn pour jënd billet waaye bu ñu ñibbi dañ leen di escorter. police dana ci dugg gendarmerie dana ci dugg ñeneen dana ci dugg ay bopp danañ ca tojante waaye ndaje mii nag moom mooy ndaje moo xam moom jàmm la ak moom lu mu gaaw gaaw gaaw a jeex nit ñi danañ fa laakaakalu ay fan. Cheikh Moustapha nag bi nit ñi nangoo nosu ànd wax naa la bi ne la moom nit ñi ànd moom xam nañ ne jëriñoowul kenn moom ndax soxla moom boppam doy na ko ci. léegi nag li nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi nga xam ne yoon wi ñoo ko war a def bu njëkk ba nga xam ne moom da cee xaatamante woon ak ñoom wax leen ne sama jëmm ji bu demul Touba moom mel na ne demaluma leen woon ci géej gi loolu moom sax mu Moussa daa gëmm naan ko mu jeex. dara ba tubaab yi jógee di def seeni pexe naan loolu dañ ko war a nangam ak i nangam kàddu gu dëgër. la leen daal di wax ne loolu de néew du am waaye man sama bakkan du ko fekke te xam nañ ne bu ko bakkanam fekkewut mu yëpp seeni bakkan du ko fekke te booba mel na ne loola jamono xewoon na waaye booba xewatul woon nag kon euh, bunt boobu sëñ Mourou Moustapha taxaw mooy bunt bi nga xam ne moom laa bëgg a développé tuuti wax ne liggéey bi fi Serigne Touba bàyyi woon bu njëkk ba sotti na beneen bi mooy jumaa ji